la langue sénégalaise. Des doyens parmi lesquels j'ai un aîné, un frère qui m'accompagne dans toutes les démarches que j'entends pour le bien-être du sport en général et aussi pour la lutte en particulier. Je veux nommer le Don King de l'arène, le fils euh, Renommer aussi mon secrétaire particulier parce que je veux que les promoteurs sachent que j'ai des amis. Papa Koufar fait partie des secrétaires particuliers. Mais j'ai des amis personnels dans la musique. J'ai des amis personnels, je veux commencer par là pour montrer que cette cérémonie, malgré son caractère solennel, il est possible d'avoir de solides relations entre nous. et des productions très parties de mes amis là sama mbokku talibé la Boubacar Diakhou c'est mon ami et mon frère et tant d'autres je pouvais continuer à citer le doyen Cheikh Sarr j'ai un ami Fatikois qui est là qui s'appelle Moussa Diouf l'ensemble des participants l'ensemble des acteurs de la lutte les Max Vergane tous ces gens que ce soit les reporters Lamine Samba, Bekaï Malik Dianou, je pouvais passer la journée à citer des noms parce que nous avons travaillé ensemble pour un seul intérêt, l'intérêt de la lutte sénégalaise. Je voudrais donc parce que je ne vais pas la parole au président. Je le ferai quand j'aurai fini mon discours, quand j'aurai fini de officiellement, il prendra la parole. Mais je vais me surveiller parce que dans ses propos, si je dois reprendre la parole, je le ferai. Je veux saluer aussi nos mamans que installer un CNG de lutte sans avoir une facette culturelle, il manquera quelque chose. Instrument traditionnel Et je pense que nous donnerons une petite minute pour qu'elle nous démontre effectivement une facette de la culture sérère, mais une facette de la culture qui accompagne la lutte sénégalaise. Mais auparavant, je voudrais, Monsieur le Président, je voudrais formuler des prières, des prières pour vous. en tant que président de du CRG, mais formuler des prières pour l'ensemble des membres du comité national de gestion de la lutte. Ce comité qui montre effectivement qu'il y a un changement de paradigme parce que vous avez une vice-présidente dans le CNG qui est ça, c'est une première. Quand on voit Isabelle Sambou, multiple championne d'Afrique, Je dirais qu'elle a gagné toutes les médailles possibles. Il vient dans la lutte pour développer la lutte olympique. Avec la direction technique, vous devez savoir qu'il y a un changement de paradigme. Nous avons déjà Tyson qui mérite sa place dans la lutte parce que c'est une pionnière. C'est elle qui a posé en tant que première femme pour de lutte. je pense c'est le point important. Je voudrais aussi saluer la présence de ces hautes autorités qui sont dans d'autres domaines, des administrateurs société, des inspecteurs d'impôts et des domaines, le trésorier père national du Sénégal, qui trésorier du CNP. Et tant d'autres qui sont là et qui ont accepté de pour venir accompagner notre discipline nationale. Cela démontre, pour ceux qui l'ignorent, la lutte occupe une place importante dans la vie économique sociale de ce pays. Il n'y a pas de complexe dimanche suivre les combats de lutte. N'acceptons pas qu'on nous vire vers le bas, parce que le fait d'être de la lutte, devrait être en tout cas une fierté pour l'ensemble des Sénégalais. nit ku mel ni mu borom nit ku mel cosaanam lamb bu ko xeeb ku ko xeeb sa bopp la xeeb parce que lépp luñ fiy def discipline sportive dañ ko jéggal xëcc ko mu ñëw ci ñun waaye lii ñoo ko boole suñu bopp tey Sénégalais bu nekk daf koy war a man nag mbégte laa ciy am su ma nekkee ci biir làmb bi moo tax ñu may tuddee le ministre de Heureusement, il y avait les ministres du football. Et des fois, on m'appelle le ministre du basket. Cela veut dire qu'on essaie d'être au milieu. On essaie de travailler avec l'ensemble des, des disciplines sportives. tey fii ku ñu fi gis mu toog ku amoon yitte la ci leneen ku nekk ci beneen domaine la te yaa fa ay personnalité ñoo fi doon ku gis na fu ay personnalité toog loo gàtt gàtt xel bi ñaanoo nga xam ne ci nekk du ay jaaxal kon tey yépp ku taxaw naa làmb ji ay jaaxal la ñàkk a xam sa cosaan la te xeeb sa bopp luy jaaxal ngeen ko ci def ay 32 milliards luy jaaxal président la mu koy suivre luy réew mi liñ fi fekk ko kon ci lu ñu dugg rek lu am solo dama bëgg yéen ñi moom làmb ji man ministre des sports bés dina jot amateur rek lay doon damay ñëw paas ñëw dama ko daan def avant may nekk ministre des sports demee seen serai plus le ministre des sports mais yéen di ngeen nekk toujours ci bëgg làmb nekk ci làmb ji kon yéen ko teel seen bopp ñooñu ñu ci dem nañ leen di dugg kese parce que làmb ji Matar Ba nekk ministre des sports bu teree mu ñàkk koo leen tere Gaston nekk kon ministre des sports wax la bëgg ñooñu làmb ji te làmb ji li koy defar mooy wax lu baax jëf lu baax jàppalante joxante loxo te xam ne fu nit ñi dajee ay nit ñi bu waroo waaye li leen tax a bu ëppee doole gis-gis yi du ko yow kon dama leen koy ñaan en tant que ministre làmb ji ku ko jéem a di nga yàqu ba bari am bàkkaar parce que li nit ñi bëgg doomu aadama lu mu fonk yàlla nga ko ciy jàppale te tey Sénégal rek ngay gis samedi arène ba fees dimanche arène ba fees équipe nationale beneen bu doon jouer tous les jours bu yàggee gars yi dañ ak ah, jàmm ñu dem waaye làmb ji tous les jours gars yi dañu ñëw ñu fees kon bëgg nañ ko te lu nit ñi bëgg dañ ci war a jàpp di ci wax lu baax di ci def fii nag jóge ci man ba ci ki gën a ndaw ci réew mi ku ci amul lu yàlla def ci yow luñ la mën a seede amul yàlla lay suturaal bu ko wane nit ku ne am na matadi bu ne ci yow parce que yàlla bindee loolu doomu aadama sutura nag dañ ko war a murante da ngeen ma war a muur seen malaam sutura ko muur leen sama du tax yàlla weer kum natta nañ doxal ndox mi yéene wante jàmm su ko je vous le dis mais j'ai la détermination qu'il faut j'ai l'énergie qu'il faut pour défendre et protéger cette discipline sportive président bi pour que li ñu yaakaar ci moom ci ñaari at yi di ñëw ñu mën ko def bien évidemment il faut ñu xoolaat charte les textes texte yi il faut ñu xoolaat ko ba am ay texte yu ñu mën a yóbbu bu matee app bi jot organiser ko ñu mën a dem ci fédération moo tax ñu jël l' ancien de la compétition Souleymane Boundaw ñu jox ko loolu nga xamante ne dina ci ànd ak mu war a ànd ñu xaaj tàmbali dañuy xoolal ñu moom tamit moom la ñu jox li nga xamante ne mooy àttee yi li ñu war a def ci ji kooku amul mbër. amul par par boo mënut a am benn jafe-jafe boo leen xoolee nag configuration bi ak conseil yi personne ressource yi ak ñi ci bokk yëpp da ngeen xam ne nekkuñu fi di wut président extra extraterrestre dafa am jamono bi ñuy dox le président Alioune Sarr en 94 boobu làmb ji Xadim Samb wax na ko ñoom Gaston ñi ko fekkee xam nañu ko. arbitre bi sax da doon yor jaas yi wala mu yor paaka parce que làmb ji naa yàqu saa su ne loolu lépp jeex na kon l'époque là des gens il fallait cette rigueur il fallait ce visage il fallait cette démarche pour defaraat làmb ji tey nag dox na ba yegg si fii beneen jéego moo jëm jéego boobu nag management la waxtaan la ubbeeku la déglu ñëpp ku la ku la woo nga ko ku fëgg sa bunt nga jël am nañu yor porte-parole bi ku gàddu nag gàddu buñ la wax loolee ligne bi ba ngeen waxtaani ko ñii fi yaakaar bu boobu mooy Abdoulaye ñëpp d'accord nañ ne yàlla may na leen gàddu su waxtaan amee bañ wax rek nit ñi dinañ leen mën a dégg je voudrais aussi que li nga xamante ne mooy jafe-jafe ñi nekk mooy borom caméra yi journaliste yi c'est pour la presse nga xam ne laa ko dalee intéressé il faut que am des rapports périodiques yuy tax bu ñu amee lu ñuy laaj ñoom tamit nañ fexe ngeen ñeme leen mooy journaliste bu ñëwee fekk si la li ko a laal yëpp mooy information juste et su ko defee loolu bu ñu ko doxalee rek heure bu ñu fëggee sa bunt rek di nga ubbi parce que nag kii ñëw laaj la pour luy defar war nga am jawar ne wax ko pour luy defar. C'est une maison de verre et il faut continuer à travailler de cette manière. Chantier yi bari na on a parlé de la participer de participer à l'éducation la formation l'épanouissement des social des pratiquants mbër yi war nañu nekk en sécurité te yéen yéen la leen war a sécuriser aussi war dox dayoo ñi nga xamante ni ñoom mooy seen administration. jox leen cër bi ñu leen war a jox le promoteur doit être promoteur dafa war a am sécurité buy dem ne day tëgg làmb te loolu yéen a ko war a pour que effectivement nit ñi mën attirer les sponsors mais promoteur yi mën a multiplier. il est évident le promoteur aussi war nañu xam kan mooy promoteur ak kan mooy promoteur. tout ça c' est ne dañ ko war a def parce que bu ngeen encadré wul la ñu Matar ba jóge fële rek parce que am na lu muy wut lu dul sax développé làmb ñoo ne jarax ci biir làmb bi lam fay yàq mooy doon lam fay donc war nañu xam qui est promoteur qui est manager war nañu ko xam les écuries war nañu mën a gën a encadré li nga xamante ne mooy tënk écurie yi école de lutte loolu yëpp war nañ ko xoolaat. mais xoolaat bi mooy xalaat la ca gën waxtaani ko ñette ko ñëpp d'accord te ñu doxal ko dafay ñëw leneen li nga xamante ne it war ngeen ko yëbesal mooy procédure dañ teg ci jamono boo xamante ne nit ñi dañu continuer di dématérialiser war nañu ko xool ba nit ki nga xamante ne sax war naa mën a bëgg dara ci CNG bi yem fële ca Fatick dugg ci ordinateur am def li muy def leen topp ñun dina leen que on a décidé ci suñ ligne formation si vous avez un plan de formation que ñu accompagner leen la directrice chargée de la formation est là pour waxtaan yi wax am ci écurie yi ak disposition yi yëpp ngeen bëgg na it cette petite discrimination qui est comprise aussi par l'ensemble des acteurs de la lutte mooy 45 ans ñu bàyyi nga bàyyi bëri nga wër nga ñàkk a wër nga bàyyi bëri am na ñoo xamante ne c'est l'âge plafond ña ko def it xamoon nañ ni ñu doon def mais loo gis mën na am amélioration je vous demanderai de voir ça il y a des propositions yoo xam ne bu ngeen ko étudier vous pourrez revenir avec des dispositions réglementaires qui permettent à des cabinets spécialisés à partir de 45 ans de donner le cursus à l'acteur est-ce qu'il est apte réellement pour a def làmb wala pour mu def su ko defee doon ñu wax 45 daal nga at boo yemee 45 daal dem ci cabinet boo xamante ne amul par par a xoolee xam ne wër nga at mi mën nga cee war ngaa mën a dem bëri loolu bokk na ci loo xamante ne bu ngeen ko xoolee ba mu doy seen xel war naa mën nekk loo xam ne mën ngeen a revenir ba xam nag moom lañ ci gunge yi ñu gunge programme mooy loolu ngeen xeex nag ak ñi nga xamante ne ay kuréel la di dox fair play ci sport ngeen jàppale leen pour que ñu gën di waxtaan ak fans club yi ak amateur yi amateur yi sax dañu jarale parce que amateur làmb presque par benn bëri lay seetaan mbir mi làmb ji bu deexee mbir mi day toog waaye bu fekkee ne mbir mi bu daanoo rek ñamu àndal yëpp dañuy ànd ngeen loolu day dem fans bi parce que du amateur de lutte ay nit ñuy supporter benn mbër il faut ñuy waxtaan ak pour que effectivement ñu wàññi li nga xamante mooy violence bi parce que il faut qu'on soigne l'image de la lutte fii ci réew ba nga xamante ni ñëpp dinañ ko gën a gën a ñeme sur le plan Je l'ai dit tout à l'heure, lutte sans frappe, lutte avec frappe. Les textes, on a parlé. donc loolu lépp bokk na ci loo xamante ne ñu ngi leen ciy xaar ci ngeen defal ñu liggéey am solo le comité national de gestion de la lutte comme on l'a dit tout à l'heure a pour mission d'organiser, de développer et même de promouvoir la lutte la pratique de la lutte sous toutes ses formes en particulier la lutte olympique sur toute l'étendue du territoire national. De programmer et de réaliser des activités de formation et de coopération pour le développement de la lutte au plan national et international. De généraliser dans, les, dans le moyen la mise en place des comités régionaux. Parce que ça, c'est déjà fait, mais il faut vulgariser. Il faut aller vers les régions, accompagner le dispositif qui est mis là pour que làmb ji yi aussi ak ci département yi commune yi dina mën a dox représenter le Sénégal au niveau des instances continentales et internationales participer à l'éducation à la formation à l'épanouissement social des pratiquants de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des pratiquants de veiller et de sensibiliser les pratiquants contre l'utilisation des produits dopants d'œuvrer la mise en place d'une fédération nationale et des structures déconcentrées. De définir les, les prérogatives, le statut du lutteur, du promoteur, du manager, de l'entraîneur et du responsable d'équipe. Donc ça, c'est chantier extrêmement vaste. Bon, peut-être dans les deux ans, vous ne pourrez Mais quand même, faites des pas qualitatifs pour que vous ayez une évaluation ñu gis ne def nañ jéego yu am solo je pense que waxtaan yi ñu am nit ñi ñëpp bi ñu ko defee def nañu ko waxtaan nañu ko ci biir concertation yi moom lañ teg ñu def leen mu kay de sant loolu nag moo gënoon a wundu waxtaan wi que ñuy tànn kenn kenn waxtaan wi c'était pour ñu dajale jafe-jafe yëpp boole bu def ñu fekk ci suñu taxawaay ñu yaa ngi ci di ci ko pat kon na nit ñi ñëpp xam ne képp kuy promoteur parce que laa ñuy def arbitrage bi dañu dem laaj seen ñu jox ñu promoteur yi nga xam ne amoon ay làmb ak làmb yi kanam ci loolu lañ def arbitrage pour jàppale ñi nga xamante ne def nañu jàpp jàppale nag jàppale la ki fekk ci waar bi moom bu la nee jaajëfee jàppale na la bu la amee kilo jàppale na la bu la def bu la bu la nee wàccan ba bay lii des si jàppale na kon jàppale jàppale la te loolu yëg-yëg la pour ne làmb ji ñu ngi leen di sant si seen parce que bi corona bi amee làmb ji ci njëkk a dugal loxo te ñoom ñoo ci njëkk a am problème parce que samedi lañu arrêté affaire bi dimanche amoon na ko war a te kenn déggul am kenn déggul ku wax lu ñaaw kenn déggul ku wax rek loolu nag bu amee en tant que ministre des sports dafay laaj waa làmb yëpp toogee moo woon leen suñu mbégte mbégte kilifa réew mi président de la république ci taxawaay bi ngeen am mu rafetlu ko mu nekk taxawaay bu am donc euh, maa ngi leen di sant di sant mbokk Saloum Saloum yi nekk ak mbokk réew de succès et de réussite dans l'exécution de votre politique. de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur, Mesdames les membres du CNG, Monsieur le Président de l'État de Kaolack, Monsieur d'abord, Monsieur le Président de l'OCAV de Kaolack, Monsieur le maire de Bassoul, d'où je tire mes origines naturelles. Messieurs les membres et présidents de CRG, messieurs les membres du CRG de Kaolack, messieurs les acteurs directs ou indirects de la lutte sénégalaise, par là, comprenez les managers, les écuries, les lutteurs, les amateurs, la presse, tout le monde mes chers amis sportifs Kaolack démb une grande association dirigée par Mass Faye la formation chers amis de Nangam 65 chers amis de l'école normale William Ponty monsieur Ousmane Ndiaye inspecteur régional des sports je Parce que c'est lui qui a fait de moi le président du CNG de Kaolack en 2004. Je ne pouvais pas être présent et que je l'oublie. Ce serait la traîtrise ou de la trahison. Monsieur Tsouandiaï, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'étiez pas trompé certainement. Monsieur Alioune Sène, chef de délégation de la famille Sène, député du Sénégal. Monsieur Aliou Faye Pakala, ancien capitaine de l'équipe régionale de Kaolack, détenteur du drapeau du de l'État. Monsieur Abdoulaye Thiam Laye Ndiombor, ancien capitaine également de l'équipe régionale de Kaolack, détenteur du drapeau du de l'État. Mes chers sœurs, mes chers de Bassou et celle du Kaolack Ndangaan et de Ndangaan précisément. Monsieur le président de l'AIC du Fonds, Monsieur Ikoussa, distingué diplomate, qui est délégation de la mission de Monsieur le président de l'AIC du Fonds, Messieurs, chers invités, chers partisans, Monsieur le en ce, temps, en cet instant plein de solennité, je me devoir de vous remercier fond du cœur du choix certes critérié et motivé qui a abouti à Ainsi, vous couronnez autrement mon militantisme sportif vieux de ans et ainsi vous relancez mon activité sportive. Cette lettre de mission que vous de me remettre, le CNG de lutte, c'est l'appropriation pour en dégager un programme qui sera décliné en action, en action graduée, tout en restant dans l'échéancier que vous avez fixé. Le choix du site, M. le ministre, qui abrite cette cérémonie, l'installation CNG de lutte, est plus qu'un qu symbole, mais une incitation au travail pour dire merci président de la a voulu bien mettre ce joyau à la disposition des Sénégalais, naturellement, et sportifs invités. Monsieur le ministre, en choisissant un président dans les régions, vous puisez dans la réserve nationale de l'intérieur du pays de responsabilité de discernement et démontrer ainsi que la compétence est au-dessus Ainsi, vous faites espérer Je voudrais profiter instant également pour tendre la main à tout le monde, surtout le monde la lutte, et éviter au travail les acteurs directs ou indirects, les partenaires, pour qu'on travaille ensemble pour le meilleur devenir du de chez nous. Permettez-moi enfin de rendre un hommage nourri, un hommage mérité au président docteur Alioune pour le travail accompli au service de la